bon maa ngi nii ci autoroute bi gis ngeen apprenti bi ndeysaan mi ngi ci biir ginnaaw oto bi di nelaw xam nga lii moom kon ko waroon doo doo ko gëm ñu ngi nii ci autoroute bi mi ngi nii di nelaw ndeysaan xam ngeen lii moom c'est terrible voilà un danger déjà moom fi mu toog c'est extrêmement la mais mi ngi nelaw